الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى مآفني أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس wa wasalaamu ala nabiyil huda wa rahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi saanin ila yawmi diin bismillahi rahmaani rahim barke cheikhul xadim jërëjëf sëriñ tuba est-ce que sëriñ tuba borom tuba mu rawmantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kenn ku ci nekk fa nga nekk noo ngi la fay fekk di la balu àq rawatina ci xew-xew bii nu génn muy atum jullit ñii di 1441 di junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn ci bi yonent bi gàddaayee jóge Màkka ñëw ma dina ba léegi mu toll ci junni ak ñeent téeméeri at ak ñeent fukk ak benn ginnaaw loolu bu ñu leen ndokkee di ñaan yàlla def ko atum jàmm def ko atum xéwal def ko atum tawféex sunu borom yàlla nañu ci kàttanal ba li nu bëgg lépp lépp lépp lépp sunu borom defal nu ko te jiitu ca li nu bëgg muy sàmmoonteeg ndigali sunu borom yi kemtalaal kàttan ak li sunu borom bëgg ci nun li nuy am lépp yàlla na ci loolu ëpp nu nekk ci li sunu borom bëgg ci nun zaahiran wa baatinan na nu yàlla boole dimbali boole nu taxaw noo ngi jéggalu ñëpp di jégal ñëpp ginnaaw loolu itam nu ci jégluwaale yàlla ci at mi ak waxtu wu nekk ni ngeen ko xamee ne du ko def ci li at mi weesu lépp lépp lu ci di rëcc rëcc ci képp kuy wax laa ilaha illa muhammad rasulullah yërmande suñu borom suñu ñeewanteem yàlla na nu boole jéggal ñun ñëpp ginnaaw loolu nu sant ko ci ba tey at mi weesu ci li nga xam ne defal nañu ko ci xéewal te seytaane bëgg a dox suñu digganteek sant ko te nu fekkewaat ko te loolu jiitu ci fekkewaat ko akuk wér akuk tal kon noo ngi sant yàlla ci yeneen yëpp bu su ko lim jàmm jéeg lépp waaye nag di ko gën a sant nag ci boole gi mu boole Serigne Touba mi nga xam ne moo nuy tegtal saa su nekk yoon wi nga xam ne moo nuy musal tey ak ëllëg yàlla boole noog moom ginnaaw loolu noo ngi ñaan ci at mu bees mi nu dugg yàlla ni ko daan ñaane rek lu ko neex lay def yàlla na bokk ci li koy neex yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha taw féexal ko ba li mu yéene ci xolam di ko xalaat ak li ko ñëpp yéene mu bëgg koo liggéeyal Serigne Touba ci toolub lislaam bi yàlla na ko suñu boroom jàpp ndalal woyefal ko yan bi kartanal ko aar ko ak mboolem ko ko yéene ak ku bëgg ànd ak moom ba mu def ko nu daje see ngërëmul Serigne Touba li nga xam ni ku ko am am nga ngërëmul yonent bi ku ko am am nga ngërëmul yàlla ginnaaw loolu nag nu ñëwaat waxoon na leen ko dañu jéggaluwaat rek ndax barki démb dañoo def benn audio bu gàtt ndax nit ñi yàgg yàgg ñaar fukki fan dégguñu tax ñu ñeewante doomu adama yi ci téléphone yu bari yu ñuy téléphoné te ñu mënta téléphoné du ñu xam nu mu demee yi xamoon ngeen ne waxoon naa leen ko ci audio bi ni leen euh, soj mi rek ak grippe bi nga xam ne daanaka dafa xaw law fi ñu toll ak xew-xew yi ñu génn muy ñaari rakkay ndar yi ak màggalu Cheikh Abdoul Khadir yàlla nañ ci yàlla defal liñ ci seen séntu yëpp suñu borom nangul na ko ak bokk yi nga xam ñoo nekk ci kuréelu ñaari rakkay yëpp ak ñi ci doon yëngu ñëpp. kon weeru septembre bi dafa dajal loo xam ni dafa xaw a bari lool muy lu yéeme te lépp jëm ci sëriñ bi te sëriñ bi ci lu jëm ci moom rek lislaam lay doon kon nag loolu moo taxoon nu defoon audio boobu doon jéggalu noonu alxames ci guddi danañ dikkaat ak yéen waaye dafa mel ni bu ngeen xoolee sax xam ni bi ñu ko waxee itam alxames ji jéem nañ jéem jéem jéem waaye munta sotti ndax dafa mel ni euh, xëy na euh, dal gi ak fiixaay gi demewul woon noonu ba tey jii nag lan ñëwaat bu ngeen ko xamee sax war ngeen a xam ni ni mu ni mu demee eggagul ci rétablir boo xam ni euh, ni ko bëggee amee nañu dëgg-dëgg muy ci kàddu gi wala ci jëmm ji waaye nag ni leen leer ni noo ngi sant yàlla bu baax te kenn kuy jàkkaarloog noonu boo ko yëgee ak boo ko yëgul bu sa xel demee ci noonu neel amin noo ngi lay ñaanal képp koo xam ni itam yéene nga nu ko dib julit dib taalube noo ngi sàkku ñaan googee ci tawféex ak wér ak gudd fan ak matale jàppandal moyens yi nga xam ni moom lañ bëgg peeg ba li nu bëgg a liggéeyal Serigne Touba ju liggéey ko noo ngi koy sàkku ci ñëpp ni ko Cheikh Saliou daan waxe naan noo ngi sarxu ci yéen ak ñaan waaye noonu tamit noo ngi koy sarxu ci yéen kon ñaan googu noo leen ko ñaanal di ko ñaan ci di ko sàkku ci yéen bu loolu jàllee nag nu dikk ci ay poñ yoo xam ni daanaka ñeent lay doon tey ndax sàq bi xam ngeen ni gën ñoo ñëw tey na ñaar fukki fan dama ciy bëgg rek attirer attention bala maa tàmbali ni leen euh, sàq mi par ay bis lañ koy def Saxum Touba l'officiel bu ma ko noppee fii ci Touba Mbacké lañ koy enregistré dugal ko ci YouTube bi nga xam ni saa su nekk boo abone danga koy daal di mën a gis topp ko léegi nag bu ñu ko defee tey ba noppi ba dugal ko tey ci guddi fii ba keroog ma koy defaat jàpp leen ni mënees na fee dugal leneen xew-xew mën naa am bu jàmp ñu woo ñi nga xam ni ñooy jàpp ci liggéey bi di technicien bi mu ñëw jël ko nu dugal ko ci. sàq bi moom day am ay bis ju nekk waaye mbir mën naa xew moo xam ni jàmp ga dana tax bu doon fukki minute wala ñaar fukk sax nu ñëw jël ko dugal ko ci ndax adduna si mooy doxee noonu xew-xew yi mooy soppi noonu loolu dama leen ko bëgg a xamal nga xam ni bul seetaan bii ba noppi rek daal ni ah maa ngi nekk ba beneen aju may ñëw wala beneen samedi diggante bi daal dee ko gëstu di ko yurundu dina am loo xëy mën a am lu ñu loolu sax noonu lay demee ndax bu ma waxul dara itam ci diggante bi am na ay lu yu bari yu ma denc yu baree bari di archive ak yenn yoo xam ni ay nit ñoo ci wax ma dem nag ba nga xam ni ginnaaw damay wër lu baax rek ak njariñ moo tax yenn yi nga xam dama koy tànn ba segg ko ma indi ko nag su ko defee léegi duggul ko ci biir nga xam ne biir ay bis gi yëpp mën nga fee seetaan sax bi benn yoon ñaari yoon wëlbatiku nag di seetaanaat yeneen yoo xam ne ñun ñoo leen ko tegal ci biir saa yu ngeen fi gis rek lu bokkut ak sàq bi xam leen ni maa ko jublu maa ko ci teg rawatina nag jamono yii nu nekk sax daf cee am yoo xam ni dafay illustrer maanaam day wone day fësal li wax ndax dafa am yu xew yu bari ci réew yoo xam ni mënees ci bañ a wax te doonoo bëgg lépp lu nuy wax ci sàq bi du doon loo xam ne dañ naan da koo déggandeem déedéet lu leer nañ lay doon loo xam ne kenn dañ cee a teg baaram kenn du ko mën a weddi beneen bi nga xam moom laay jeexale ci introduction bi ngeen baal ma mooy eh, sàq bi bañ ko tàmbalee ba léegi di ko dugal ci YouTube bi am nay bokk yu baax yor ay site su ma noppee dañuy ñëw seet ci biir sàq bi li ma doon wax ñu tibb ci sàq bi ñoom dem yóbbu ko ci seen site def ko fa lépp bëgg mu gën a yaatu rek ak nit ñi gën a jariñu loolu waxuñu ci dara am na sax boo xoolee yenn yi da nga gis ni boo demee vues boo gisee di nga dem ba gis ñoo xam ni dañ ci am ay lu mat cent vues maanaam té danañ ci am daal téeméeri te te te ju junni junni ay junni junni yoo xam ni nit dañ koy seeraan foofa léegi nag loolu li ma li tax ma di ko wax mooy damaa bëgg ñi koy def itam bu ma defetee sax ba noppi képp koo xam da nga koy dagg am loo ciy jël di ko dugal ci sëb site maa ngi lay ñaan li nga may jëlal na am na am bopp ak genn na doon wax joo xam ne bi ma ko tàmbalee tàmbalee naa ko fi ma ko tàmbalee dana daanelee ko fi ma ko war a daanelee waaye li may bañ mooy nga jël loo xam ni dangay ngay indi wax joo xam ne day indi confusion wala polémique dagg ci li may wax loo xam ne wax ja du egg nga teg ko su ko defee nit ñi ni ah lii ndax am na ci ñoo xam ne xëy na seetaanuñ Saxum Touba l'officiel wala xamuñu ko su ko defee nag suñ demul ñan seetaan wax ji lépp ba mu jeex tàkk lañu gis fee rek la ñu def ni loolu laa wax te yi ngeen di gis yépp ñu di ko génne ci yeneen sites yi ci Saxum Touba l'officiel mii lañ koy daggee ko di ko génnewaat kon nag bokk yi dara newu ci lu luñ ci buñ buñ ci manee jëriñoo vue ya ba rek yooyu yëpp lu ma solo li may yitteel daal mooy wax ji nañuy fexe ba rek ñu fexe ba li may wax buñ ci dee daggit la lañuy dagg na mat sëkk na am ab tàmbali am ab yemukaay waaye bu mu am tàmbali boo xam du am yemukaay su ko defee ñu defe ni noonu loola laa wax te waxewuma ko noonu loolu maa ngi koy sàkk ci bopp bokk yi jëriñu ci Saxum Touba l'officiel mépp euh, ginnaaw loolu di leen dërëm di sant di leen sant tey nag ma ñëw ci menn mbir mi may jëkk a tàmbali mooy damay wax ni tooñ baaxul te ñun ñëpp ay jullit lañ euh, te yonent sax da koy wax unsur axaaka zaliman aw mazluman dimbalil sa mbokk su tooñee wala buñ ko tooñee bu tooñee buñ ko tooñee ku ne xam ne ñu koy dimbale bu tooñee itam wax ak moom dëgg moo koy dimbale euh, jullit itam ak noo mën a doon ak foo mën a toll war naa am looy sàmmoonteel bu fekkee da ngay sàmmonteeg alquran ak sunna wala ngirum salafu saalix Sëriñ Tuubaa dafa yéeme lool ndax bi mu ne as salaf as saalix la ci teg kon salaf mën naa doon te bañ a doon saalix saalix la wax mooy ñi wóotu yonent bi te yiw te baax te tege ca yoon wa yonent tege woon ndax wóotu ko ba noppi rek te tegewoo ca loola kon doon salafu saalix li ma bëgg wax foofu mooy dafa am loo xam ni. xew na fi ay yoon dem nag bay bëgg egg foo xam ni jaadootul ndax bërki dem rek dégg ngeen ni am na ku nekkoon ca Gabon doon saaga sëriñ si nekk Sénégal kilifay diine yëpp saaga yu ñaaw ba sénégalais ya nekk ca Gabon ñoom jóg nañ taxaw ca ba autorités Gabon yi jàpp nañ ko fi may waxee yu ni autorités Gabon yi jàpp nañ ko ndax la mu doon wax moom Gabon la ko doon waxe waaye ñi mu ko doon wax mooy kilifay Sénégal yii nit mag ñi nekkoon fii ci réew mi bu ma nee mag ñi rek mooy ahlu suuf yi wax ju ñaaw ay saaga yu ñaaw ba fi ñu toll nii jàpp nañ ko mi ngi ci loxo waa Gabon ñoo ko jàpp léegi nag dafa am lu fi xew loo xam ne ba ko gis ci bande musuma wax ci sax lu mel noonu te ñooñu it ay taalibe laa leen di mën a jàppale laa leen di mën a jàppe sax man ndax seeni waajur yi leen yi leen meññ Sëriñ Tuubaa yaakaar ay taalibe leen daan sukk di raam di sujjóot di liggéey di jaamu yàlla di joxe addiya yemalewuñ sëñ Tuubaa dara man ak ñoom ak ñeneen ñi nga xam ne seen maam toppoon na sëñ Tuubaa yépp loolu moom ma gis nag gis naa bu vidéo bu circulé boo xam ni bi ñu ma ko wonee damaa am sax mbett foofu laay tàmbalee te li ma jaaxal itam bala ma ca tàmbali mooy eh, ginnaaw réewum Gabon ab sénégalais fa mën a nekk di wax waa Sénégal lu ñu leen warta wax sénégalais ya fa nekk jàmbat ko ba autorité yi Gabon ñoom am fayda ak fulla xam ne li yoon ñu teg réew mi maa ngi ciy bëgg a jaaxle président bi ci boppam. toog na fi ñeenti weer ci ginnaaw wala juróom ñëpp di ko seetaan télé mu ni internet bi du pour saaga du pour xaste du pour nangam te képp ku ko ci defati danañ ko lijjanti président bi moo ko wax njiitu réew mi moo wax loolu ci télévision yàggul ñëpp seetaan nañ ko moo xam nag ci kilifa diine la jëm wala ci keneen ku mën a doon ndax loolu sax moom sénégalais lambda sax da koo amul sañ-sañ di ko wax yenn yi loolu bu mu ko waxee ba noppi mais bis bu nekk mbir maa ngi gën a takkarnaase lu jiitu muy wax ak bi mu waxee ba noppi te ñi ngi koy wax itam du n'importe qui mooy lan mooy gis nañ ni réseau sociaux yi ak internet bi am na ci ñoo xam ni dañuy tudd ay wahabiyun wala salafis wala nangam-nangam lenn du ñëpp waaye am na ci ñoo xam ni naa du ñëpp am na ci ñoo xam ni ñi ngi wax wax joo xam ni jaariwul léegi nag président bi waxoon loolu ak même bu ko wax lu woon sax bu waxlu woon loolu sax moom président bi nan la ñuy mën a bàyyee ay nit ñuy wax mag ñi wax ju ñaaw joo xam ne di li teg ñoom ay kàddu ak di wëlbati di di takk fir nit ñi mooy nit ka yéefar nga boo defee lii yéefar nga bokkaalekat nga ci biddaa nga nekk sawara nga jëm maanaam bu yemoon ci yooyu sax waaye am na ci yeneen yoo xam ne yu gën a doy waarati waaye nag lu gën a garaaw takk fir nit moom mënul am nit di jullit nga ne ko bu yéefar nga loolu mu ngi am li tax ma wax mooy dama ci gis benn bàndiw boo xam ne ki ko def euh, ngaabu gii la dëkk Dakar la nekkoon du jàngale parcelle te li may waxit day am témoignage jóge parcelle jële fa daaram indi ko ngaabu ndax ngaabu la dëkk fi la cosaanoo kero bi muy ñëw man yàlla daf may dimbali ci yare xaw ma lu tax yàlla di ko def ma di ko fekk kero bi ko sëñ Modou Lo ngaabu di indi ci sëñ saaliw mu di ko yëgal ni ko dafa bëgg ñëw sampaat daara ngaabu jóge fa mu nekkoon ñëw ngaabu keroog sëñ Modou Lo ngaabu moo ko indi bu ko neexee mën naa seetaan lii moom mën naa seetaan ñoom ñëpp man rek maa nekkoon sëñ Saaliwu ak Abdoulaye Gaye ak Gora Dieye Abdoulaye sëñ bi da ci biir góor ji jug gën bi sëñ Modou Lo egsi ànd ak kii ma leen di wax loo moom mu ànd ak moom mu présenté ko sëñ bi mu nuyoo ba mu xamal ko bëggum bëgg a indi daara ja foofu keroog man maa ngi toog nun ñett rek a toog sëñ Saliou man sëñ Modou Lo ngaa bu moom léegi nag loola kii may leen di wax nag band bi mu def lu ko gën a doon gàcce amul ci koo xam ni sa waajur danaan sukk di raam di sujjóot di joxe addiya yamaluwul sëñ tubaa ak dara di nitu yàlla ko baax mel ni sunu way jur ya ku sel ni ko mag ñu baax ñu mele népp nga wëlbati ko taxaw nag bu fekkoon ne man sama jëmm rek la du ma wax waaye dangaa ngaa attaqué yoonu murit sëriñ bi bokk yi taalibe yi seex si ñépp parce que lan la wax daf ni yoonu murit daf leen tëkkale ak ñan ak waa ahlu firawna na ma ci Égypte ki nga xam moo waxoon ni man yàlla laa yàlla la jàppe woon boppam yor armeem yor dooleem jàpp ay nitam di leen dóor fuddul lu ne mu def leen ko ba nit ñi nekk ay jaam ci moom nga xam ne kenn du sëqat ci doole la ko defee te moom gëmul yàlla booba moom yàlla gëm na ni mooy yàlla ëpp leen doole léegi nag nga jël léegi lu toll ni yoonu murit nga ni léegi euh, taalubee yoonu murit li li ñuy dund mooy dañoo mel ni waa waa Firawna na Firawna defoon ndax nee na faraw na dafa mel ni ku yoroon ak jur rek jur am na jur goo xam da nga ne di wulli bañ nooy nga soog leen jëfandikoo nee na na faraw na defoon ñooñu waa këram bañ nooy loola lañ def murit yi fastaqafa qawmuhum mu jël ko ci alxuraan itam jël ci alxuraan aaya xoolal boobu tegtal koo xam ne ab yéefar lay waxal aaya ba ak koo xam ne day woote ni yàlla laa ak ëpp doole ñooñom def ca nga jël ñooñu di leen comparé ak ay taalibe nga ni na Firaaw na defoon ñooñu ëpp duma leen wulli leen di leen jariñoo doyalal leen tuutal leen noonu la moo mooy système bi nekk ci yoonu murid nga ni fastaqaffa qawmuhum loolu xool leen jooju wax sëñ bi maanaam ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba benn ñàkk a jàng histoire fi mu tàmbalee mooy koo xam ne yow ba mu tàmbalee di woote ba ko yàlla joxee ndigal ba léegi mu jaar ci yont yi muy Sëriñ Tuubaa kenn ku ne xam nañ musta nangoo nekk ak nit ñi sax ndax bëgg a wéet ak yàlla suñu borom ñëw na Mbàkke ñu topp ko mu jóge fa ñëw daaru salaam ñu fekk ko fu mu jóge fi tuubaa gii dafa daw doon làqutu si ngir sori nit ñi dem ci yàlla jóge fi dem Mbàkke bari fenn fu mu nekk maanaam li ma bëgg a leeral foofu mooy na mi muy tëkkale ak ñi wane ni dañu vraiment dafa wulli waa këram bañ nooy mu leen jëfandikoo kii léegi Serigne Touba Cheikh Sidiya baaba da ko waxoon ni ko antal murabbi bi ma rabbal aminu bihi harfan bi harfin fa maa fil jili charwaak yow dong képp yaa fi yare ni yorent bi doon yare maas gii sa morom newu ci loolee mu ko waxoon nag laa bëgg a tontu kii xamal ko di ko Serigne Touba laa tujad maanan li haadihi l kalima fii manhaji tarbiyati cheikh maanaam kalima bii di fastaqafa amul ci da da da ku dul sëñ bi sax amul ci moom sëñ bi xam nga fu mu jaar topp tànki yonent bi sallallahu alayhi wa bi may indi nag te loolu firndil la ko fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan qalbi walaw kunta faddan ghalida al qalbi lan faddu min hawlika Serigne Touba ci yoon wi la roy Serigne Touba ca muru aga ca jom ja ca ngor ga loolu la ko nit ñi toppe woon te li tax jàng diine rek yem ci baaxul danga nga ciy boole lépp am culture générale boo xooloon li tubaab yu bind bi ñuy accusé Serigne Touba ci biirum Ndar bi ñuy lire discours bi dañ ne Serigne Touba mi ku yeewu la ndax li tax mu jóge mbakke Kajoor dem Bawol xam na ni tanorub goñ moo yilif foofa te dafa soxor ci nit ñi te nit ñi boo soxoree ci ñoom boo leen yilifee soxor ci ñoom bu ñu amul pexe rek la topp sa ginnaaw waaye bu ñu gisee leneen topp ko mu ne nag ñoom ñu ne nag Serigne Touba dafa bëgg lu nit lu lu nit ñi bàyyi tanooru gooñ rek topp ko ko ngir lewet gum lewet ak ak ak supp supp am yow ko wëlbi ko nag di tëkkale waa ahlu Firawna ak murid yi ni leen a wulli sa wajur bu baaxoo de àndoon ak suñu wajur ñun ñëpp njëkk a topp Serigne Touba ñu topp Serigne Touba yaakaar ko doyloo ko nga xam ni fa mu tëdd tey ma nga ca àjjana moom ñu mag ñëpp kon boo fekkee ne da ngaa ni kon baat baatu wulli boobu nga wax toogal nga xoolaat bu baax ci wulli gi lu muy takki mag ñi nga xamante ni bii duñu woon ay jaahil ñi jëkk a topp Serigne Touba duñu ay jaaxil xam-xam fi ñoom la yemoon dinaa ci indi ñaari tegtal benn bi mooy. sëriñ Tuubaa ne ajaabani xayru baaxin fii xattaaba kulli waraqaa bi maa lii xaad axtaaba yàlla wommatal na ma ay bu zamaan ñu ñëw ànd ak man ci liggéey bi may liggéey yonent bi waaye lu tax ñu def ko la dalla alayya al ulama wal awliya man laa yazaalu quwwati wa hawliya ñooñu kenn wulliwu leen wala boog yàlla nga war a waxal ni ko lu tax nga wulli ñii kon yàlla moo leen wulli kon waaye sëriñ Tuubaa ca muroo aga ca souplesse ba ca mbaax ga ca ngor ga fan ngeen mas a gis ko li aju ci yoon yëpp Sëriñ Tuubaa bi muy wax am na sax ñuy wax ni Mbàkke yaa nuy moom bu nuy dund ak bu nuy dee lépp yaa nuy moom waxin la nga xam ne amul kenn koo xam ne Sëriñ Tuubaa mas naa ñëw propagande la maanaam ku fi ñëw ku sa bopp te mag ñii ma lay tuddal muy sa jur ak sama way keneen ñëpp seex sooy ñëpp kenn ku ci nekk da demoon bay ji bay bay xeeñ yàlla doon jaamukatub yàlla bu mag jege yàlla lool jàng diine xam lépp nga xam ne kenn mënu laa dugal ci lan ñoom ñu dem ba ci yàgg ñëw Sëriñ Tuubaa feeñ ñu bàyyi lañ jàppoon lépp ñëw topp ko maanaam Sëriñ Tuubaa demul jëli leen forcé wu leen yow nag nga ni xaw qawmuhum dañ leen a wulli yaa lil aar yaa qalil yaa qalil te lii band baa ngi fi ñu mi ngi denc yow yaa ni de ahlu na nañ defoon fa xaf xaw qawmuhum tuutal leen doyadal leen wulli leen noonu lañ def taalu bi ba léegi fu ñu leen neex jaaral leen fa loolu nag danga koo wax tooñ yoonu murid wépp ñu waroon ko séntoo ci keneen ci keneen ndax fa ngeen jaar ba xam dara daarul arifa ngi nii ci biir jumaa yi Touba sëñ As Jaxate mboolem ku fi jaar moo la jàngal li ëpp moo la jàngal jàngal Modou Lo Ndakar jàngal ñeneen ak ñeneen te ba fii may waxee yow ni kenn ku ci ñëw mu jàngalaat la ba léegi ak lu ci waay mën a yor naan diplôme boo ñëw mu jàngalaat la kon yaakaar naa ni li doon fay bor bi mooy na ngeen jàng ba yor ay ba batoy batoy téere waaye boo ñëwee yow bu la neexee jàngaleel lu la neex ibnu taymiya Abdul Wahab lu ne mën nga koo jàngale lu baax lu ne mën nga koo jàngale bu la neexee waaye nag li jaaduwul nag muy wëlbatiku nag di diingat ak a xaste ak a saaga ak a weddi ak a takfir ngir lan min ajli luqmatu aysh ak daraja luqmatu aysh ak daraja ak kibriya kibriya ak luqmatu aysh ak daraja bu boo waxee wuloon nii rek duñu waxee nii waaye li nga wax lu ko gën a garaaw lu ko gën a garaaw ci offense amul fastaqafa qawmuhum na waa Firawna defoon nañ lañ leen def wuli leen Sëriñ Tuubaa wax leen ma kan moo mës a benn yoon la mës a yëkkati loxoom loolu sax leeral la benn yoon la la mës a di yëkkati loxoom fu ma ko xamee benn ñaari yoon benn bi ci mooy ba colonisateur ba taxawee ca Ndar di ko wan ni ko dégg naa arab ni ko anaa mu dabbirul umur sëriñ bi tàng fi saase c'était doon un homme d'action la woon mu joxoñ ko baaraam bu ni ko kadabta mu dabbirul umur mu dabbirul umur laa yemut wa anta sa tamutu xariban mu dabbirul amul muy yàlla du faatu yow léegi nga faatu balaa yàgg léegi suñ borom barkeel waxam joojee teguñ ca lu yàgg dara tubaab ba faatu doon ko jimoon ne ko dégg na arab benn bu mu mës a yëkkati loxoom benn la ca Gabon mooy keroog ba ñu ñëwee di ko jox fukki dërëm di ko ko fay muy pension suñ ko ko joxee mu salax ko nële ñu defee ni loolu da koo xeeb ñu dem di ko dajale di ko dajale di ko dajale ba mu bari ñu def ko ci mbuus mu mag ñëw jox ko ko ni ko am sa pension nii lii nag moom bu fekkee lii rek nga bëgg mooy yàlla mooy lépp wan ko di ko xaalis bi mooy lépp rek waaw yàlla lépp a ngi nii mooy yàlla Sëriñ Tuubaa tàng gum tàng tax mu jël mbuus ma keroog ma sa yëkkati loxoom fëgg ko ci jéew Tuubaa ba mu mu xaañ ko ñaar yooyu la histoire mën a wax Sëriñ Tuubaa ca ca luyoona ga ba Sëriñ Tuubaa ca ca mbaax ga ca ngor ga ca taxaw wax ni ak yoonu murit kilifa yi wax leen ma kan lañ fi mas a jël aw yat déedéet téye la force la yow nga léegi mbir mi dafa garaaw ba ëpp yaa xalil xalil yaa xalil lii mi ngi tege mën nañ ko woon ñëpp ñu gis ko te yaa ko wax xaw ma ci conférence xaw ma foo ko waxee waaw loolu lu ko gën a doy war amul beneen bi topp mooy boo gisee may wax lii dafa am loo xam ni salaan gaaw naa jooy waaye boo ko lal du jooy su dul woon sa wax ji du ñu yëg sax ne existe nga. waaye nag jël lu toll nii jëmale ko ci tout mboolem askan yoru murit wépp ak képp koo xam ne sax ab suufi nga xëy na am ñu la topp nga jëmale ko ci ñoom nii dañ leen a wulli na firaaw na defoon ñooñam ndax ak jur jël ak jur jur da nga koy wulli ba mu nooy nga di ko jëfandikoo fastaqafa qawmuhum la fa bima rahmatin min allaahi lanta lahum walaw kunta fardan qalidal qalbi lan faddu min hawlika nooyaayu yonent bi ak mbaax ga ak yërmande ja la ko nit ñi toppe woon loolee rek sëñ Tuubaa moo ko doon yeesalaat moo tax bi mu ñëwee loolee lañ ko toppee jëm yàlla sunu borom bi benn bi topp mooy li may wax du ay dañ naan fu ñu ko jëlee yéen ngi fàttaliku ñetti at ci ginnaaw am na benn xale bu fi waxoon ci baytu sëñ Tuubaa firi ko juum ca firi ma mudloo ndaxaar wëlbati ko teg ci kàddu bu doy waar jëmale ko ci sëñ Muntaxaa mi fi nekk mudloo ndaxaar bu xëy nag ñi ñi dinañ lu tax mu naan mudloo ndaxaar nun génération bi doo ko bokkoon bi nu jàngee Touba ba noppi ci majalis yéeg yëpp jaar al azhar ba noppi nun ñëpp dañoo tàmbali woon di jàngale ji lépp rek ngir liggéeyal Serigne Touba ci tool bi Serigne Mountakha Diatara mi ngi nekkoon dëkk bu ñuy wax Pekes la doon jàngale docteur Khadim Sylla mii ngeen di mi ngi nekkoon dëkk bu ñuy wax Ngéy Ngéy ci wetu njukki diggam ak Pekes juróomi kilomètre ci kaw tali bi fa la doon jàngale sëñ alaaj Ndiaye alaaj sëñ Ndiaye Guédé mi ngi nekkoon Mérina Ndaxaar Modou Lo mii ñuy wax docteur Ahmed Lo Modou Ndaxaar lañ ko daan wax dëkk ba mu doon jàngale mooy ndaxaar Mbay ca wetu ngaay moo tax ñu daan wax Modou Lo Ndaqaar Serigne Saïd Mbacke mi ngi doon jàngalee Riso man maa ngi doon jàngalee Belloxo ak Kër Baba xamante nan bu baax a baax a baax ba ñu noppee itam di jàngale man ci génération boobu maa ci jikkoon a gën dem li ma wér mooy jiitoo naa ko lu mu bon bon Arabie ñaari at wala ñetti at moom Modou Lo Ndaqaar mii ma nekk Riyad man kii nga xam ne benn la ci ay sëriñam kenn la ci ay sëriñam ñu koy wax Abdoul Aziz Ben Baz man bi ma nee cëpp Arabie Saoudite visa bi ñu ma may du visa jàng visa umra lañ ma may umra une semaine laa amoon droit toog ko Arabie Saoudite te toog naa fa fukki at ci mbaaxu sëriñ bi fukki at ba jàng ba am sama maîtrise Mali laa dem ci ci otoraay wàcc Côte d'Ivoire jóge fi waa dem Ghana jóge Ghana dem Égypte romb fa fekk fa sëñ Aliou sëriñ Fallou jóge fa dem wàcc Jidda dem ma dina siyaare yont bi ma dina dem Riyad te boobu awma droit man dugg Riyad parce que visa umra laa yor ca jamono yooyu laa la wax de ay 79 mu ñu di ba ubbi rek mu mel dañuy xàll may dem keroog bi mu ne cëpp Riyad kenn ci ay sëriñam moom mii mu duloo naqaar wala ñi nga xam ne leen di mu muy Cheikh Abdoul Aziz Bin Baas selma xala woon moo doon mufti golf bi yëpp man këram laa wàcc man kii di sëriñam man këram laa wàcc maa ngi moom dañ daan bokk di mu ñëw mu bëgg maa delloo màkk ni ma daarul hadis di wax ak man nangam yër africain yi nangam maa ngi moom maa ngi moom maa ngi moom ba mu nangu li mu bëgg ñu bindal ma lettre médica l'éducation nationale l'éducation nationale bu Arabie Saoudite ñu may mu bourse immédiatement benn base moo ma defal loolu man moo doon sama tuteur sama séjour kenn mosu ko séjour base boobu benn base moo ma joxoon séjour man université Roi Saoud joxuma séjour lycée Roi Faisal joxuma benn base moom nga xam ne moom ngi sukkandiku nee la man maa ngi moom Abdoulaye El Hakami bi doon secrétaire particulier ba léegi yaakaar naa ne mi ngi dund xam na loolu damaa weesoon ak moom dama daan ñëw ci kër boppam gi toog muy reer mu bokk ak moom lu ne def nañ ko jéem nañ ko ci man teewul may màggale ci biir Riyad di màggal ci biir Riyad li may li may wax ñëpp xam nañ ko aventurier yi fa nekkoon xam nañ ko sénégalais yaa fa nekkoon xam nañ ko ndax demoon naa ba yàlla def ba doon président étudiant sénégalais ca Riyad ñoom xamoon ko di daan naa màggal biir kër ga nañ màggal ci yeneen kër sëriñ Isaaxa Mbàkke bi sëriñ Basiru mi am na at moo xam ne ci këram lañu màggale ci Riyad keroog yéen nga xam ni naan docteur Ahmadou Lo nanga Modou Lo Ndakar li nga waxoon jëmale ko ci Cheikh Muntaxa du ma ko fàtte ñaari ci ginnaaw ñetti at sëriñ maam Cerno taawub sëriñ Muntaxa keroog ba mu ma wooyee nun noo ànd dem Dakar fii jumaa ji nekk tey ci Masaalikul Jinaan fa lañ dem man ak oustaz Cheikh Gueye keroog lañu weddi la nga doon wax lépp ndax wax ju ñaaw ji nga waxoon jëmale ko ci kilifa gi mu Modou Lo Ndakar lu leer laa la wax te li may wax dara histoire moo tax histoire da nga koy téye denc ko lii ma lay wax ni ba nga ko waxee ba tiit am na kilifa goo doon waxal moo la wax artool ni la na noppi ndax bu gaa yi dellu sa kaw man maa tax lu tax nag léegi lii bu amul woon ndax dinaa toog fii man di mën a créer lu mel nii lu tax ngeen bëgg wëlbatiku dama yaakaaroon li doon fay bor bi moo doon delloo njukkal sëriñ As Jaxate bi leen doon jàngal ci daarul maarif ci biir suuf jumaa ji te ñi jàngi woon bërki démb rek am na loo xam lu doy war sëñ Ahmadou Rafaay ci xam-xam bi ak yar beeg teggin bi ak fi mu jóge ak fi mu bokk ñëpp nangu ko mu jóg di wax jëme ci wahabi bi nga xamante ni bi da doon di jëf ay leeral kenn ku ne taxaw ci internet bi lu ne ñu di ko wax te mu wér leen ni yéen kenn ku ci nekk dongo yooyu ngeen yor ñëpp ku ci nekk ku ci ñëw mu jàngal la dama wér ni keroog rek jàpp na ko bu doon jàng ñetti sax par bis wér na ma ni jàng ndax damay wér ni keroog xool na ba ci yàgg xoolam sedd xam ni ñii jëruñu sax mi ngi ci biir YouTube bi sëñ Maodo si wax na ci sëñ Sambay waxoon na ci ci lii may wax nii sëñ Mouhamad Kama mi ngi ciy wax sëñ Moustapha Sylla mi ngi ci wax ñu ngi leen di wekki wekki wekki par benn téere bi ñu bind yëpp ñu ngi koy tas Xaadim Bousso wax na ci sëñ Mbay Longoor wax na ci ñii ñëpp wax maanaam lu tax léegi mun leen a jàngale li nga xam ne moom ngeen jàng ngir li wacci Laahi taala te bañ a tooñ benn jàmbur te bañ a wax jenn wax ju ñaaw te ndax ñi leen dàq jàng ñoo fi nekk ba léegi ñi ngeen jàngandoo li woon ci biir réew ak ñi jàngil woon ñëw am na ci ñoo xam ne ba léegi mën nañ leen a jàngal kon nag léegi li tax ma wax ji lii day point boo xam mënuñ ko jàll état wu Sénégal nag li tax ma interpellé ko mooy fu ñu mën a téye nit ca Gabon ci wax ju mu wax ci ay kilifa diine Sénégal état bi président bi moo ko waxoon bu ko waxlu woon loi bi ak yoon wi ni mu tëddee kenn ku ne da ngaa war a jàpp sa njaabur bañ a tooñ kenn te gis ngeen internet bi bis nekk ñu wax ci sëriñ si lu doy waar. lu tax état bi noppi gi noppi je pose la question président président bi njiitu réew mi moom lay poser question ministre de l'intérieur ministre de la justice lu tax yéen ngeen bàyyi te te loo xam ne mën nañ koo faj ci àllab ci benn minute ndax ku ci nekk audio ya ngay defar ci téléphone nga ko waxee dugal ko ci internet bi mën nañ laa fekk fa nga nekk localiser la xam fa nga dëkk ak ku mën a doon loolu ñiy saytu kaaraange ci Sénégal doyu leen sax gàllax di benn téye la ba noppi jàppale ba noppi tëj site ba mais ngeen di ko seetaan guddeeg bëccëg ñuy saaga sëriñ si te état lu muy jariñ mooy dañ laa wax ni la bokk nañ ci rôle régalien nu état mu assurer sécurité doomu aadama yëpp ak seen jàmm ak seen dal kenn ku ne yem fa mu war yem loolu nag buñ ko deful li muy jur mooy nit ñi jóg fayul seen bopp loolu rek lay jur te benn bi ci des ma ci exemple rapport de force amu fi benn daayira bi gën a tuuti ci yoonu murid benn daayira ba gën a tuuti moo ëpp ñii ma ñii ñii may wax mbooloo mi may wax benn daayira laa benn ndey rek laa wax rapport de force amu fi ñoo xam ne boo leen di calculer bu Sénégal di téeméer mu zéro virgule zéro virgule zéro virgule zéro lañ ci bu lay rool kon rapport de force amu fi mbooloo mi tolluwul kon yaakaar naa ni war nañoo bàyyi xel baax a baax baax ndax nit ki am na droit jàngale loola neex waaye nag nga jàpp sa njàmbur yam fi nga war a yam doo gendarme bu l'islam ñaareel ba laa ikraha fi diin xanaa kon alxuraan ji wax jàngatuñ ko pourquoi finesse kay mu ngi ci mën a jàngale nit ñi xam demal ci ñi tuubagul gëmuñu yàlla du ñu wax laa ilaha illallah moom ngeen fexe ba ñu wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah waaye fekk koo xam ne yow bis bu ne mu xeeñ yàlla ay gone yu tuuti guddeeg bëccëg nga jàpp seen i kilifa wa te te li ci gën a doy waar mooy téere boobu nga bindoon muy taq asxaas fil fikr suufi gone yu tuuti yoo xam ne am na ci koo xam nee nañ at mi ngi koy bind ci la juddu moom te wekki na téere bi dammat ko tas ko tas ko ba nga xam ne dut dara te kooku boo ko woon tey la neexee ay ca ñu ko wala kenn mu toog gone laa loole mu toog ak yow ngeen jàkkaarloo télévision ñëpp seetaan ko ñu wax ci nga wax ci téere bi doy wax ju doy waar yi nga wax ci kilifa yi lépp ngir lan asakay naar ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak bëgg daraja déedéet parce que dafa am loo xam bu ngeen doon jàngale ba addunay tukki kenn du leen tudd kenn loo xam waaye nag di dugg ci mbirum jàmbur di ca wax lu ne ah, loolu moo teguwul ci yoon loolu nag laa bëgg wax ni état du Sénégal ñu ngi koy interpellé kenn ku ne na jël ay part de responsabilité kenn ku ne na jël part de responsabilité ndax li ci li li li xaw a tax mu xaw a dal nii sax mooy taalibe yi la masse li ci ëpp ñoom jànguñu arab xamuñu li ngeen di wax demuñu ci site yi di xool waaye li ëpp ci taalibe yi wér na ma ni am na ci ñoo xam bu gisoon li ngeen di wax loolu leneen la ñuy wax bis buñ ko gisee laa wax. li fi nekk kay mooy ñenn ñi jàng arab ak ñi jàng diini ñoom ngeen di waxanteel ci biir internet bi ñu joxe ay masaal ngeen di wax ñuy tontu laajee ka laajee gi looloo tax waaye wér na ma ni bis bu tasaaroo ci taalibe yi lii dana jur leneen kon nag état na jël responsabilité mboolem ñuy saaga ak di wax lu ñu war wax lépp jëmale ko kilifa yi jëmale ko niti suufi yu jëmale ko ci confrérie yi ñu taxawal leen immédiatement loolu moo gën loolu moo jaadu ndax nit ñi kat am na foo bu ñu fa eggee seen xol dana jeex jeex koo xam danañ fayul seen bopp. loolu mooy du leer nañ waaw damaa xamul nag li tax may laaj question mooy coow lii noppi gi ci état bi noppi ak yeneen coow yu mel ni yooyu ak coow yu ñuy créé te doo xam fu ñu ko créé est-ce que loolu dañ ko def pour noppiloo nit ñi ak fàtteloo leen les scandales du Sénégal scandales du Sénégal yi lañ leen bëgg a fàtteloo wala dañoo bëgg taal dëkk bi dëkk bi mënut a tàkk ndax ñii ma doon wax nii léegi mëtuñu bu bu nit ñi doon jëflante ñoom nit kay ba balaa dëkk tàkk juróom fukk day nekk fi juróom fukk nekk fi. mais téeméer nekk fi kenn nekk fi loolu nu muy taalib dëkk nit ñi mën nañ koo faj ci lu gaaw li nga xam ne moom la ñuy chercher pour embrasser le pays après bu ñu signé contrat yi ba noppi pétrole bi lépp su ko defee tubaab bi nag jël seen pipeline dugg ci biir nag nit ñi di xeex ak xuloo ñuy manque pétrole bi yóbbu ça ne passera pas lu deme noonu ñiy ñiy xeex loolu ñoom ña ca Ndakaaru ak yeneen barbe di ko xeex ñiy aar moom ñi ngi aar loolu te kenn loolu mun leen fexe ba ba nit bu dee nag dañu bëgg créer ay coow ak bëgg a nit ñu nekk ci yenn problème ba fàtte yooyu loolu mënut a nekk ndax nit ñi nekk nañ ci situation yoo xam ne mënuñu koo fàtte ndax li ñuy dund jour au jour le jour mënoo fee indi coow lu garaw ci àdduna ba nit ñi fàtte liñ nekk kon lu tax léegi état jëlu responsabilité am laa la wax ci lii en tant que ñu dénk ko lépp nga xam moom moo ko war a loolu question bu ñu laaj lu tax état di seetaan ci lii xew ci internet bi te bu yàggu rek na fi ñoo xam ne naan offense au chef de te dañ leen di tuumaal sax boole ca ñu jàpp leen téye leen te kilifa diine ëpp maanaa fopp ëpp maqaamu fopp ëpp maqaamu fopp ëpp maanaa fopp ñu di leen wax loolu ba noppi état ne fi war ko réglé loolu te réglé wul loolu fu mu tege ba noppi ñu di tuddooy taal bi boole ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ku ko xam ci sellam ak màggam nit mën a jëw taxaw di yëkkati kàddu ba ki démb am na ci boo xam ne moo tax wax ji sax naruma ci musuma ci war a wax waaye li gën a doyati war mooy xasida Serigne Touba yi nga xam ne ku ne xam ne la la beauté littéraire de Cheikh Ahmadou Bamba beauté littéraire bi nekk ci xasida Serigne Touba yi ni ko yàlla dégloo arab nuusi ali nuurul lisaani wal kitab azmana xidmati la daal ahlil kitab yàlla da koo nocci leeruk leeruk la leer gi nekk ci langu arab secret beeg leer gi ak alxuraan loolu la ko yàlla nocci jox ko nu ko neex la koy maññee lastu ajuulu lilti liltimasi maarifa nakiratan kuntu wa sirtu maarifa sëñ Tuubaa mooy koo xam ne nit ku ñuul woo xam ne lim man ci làkku arab kenn mënu ko gannaaw alxuraan mënoo gis ku mën a bind noonu mënut a nekk loo xam ne ci day dugg ci yaram wi nga di ko sentir di ci am loo xam ne ak yëg lay doon ba noppi nga di ci bànneexu kenn mësu koo gis xasida sëriñ Tuubaa yi boo ci duggee xam li ma la wax labista thiyaab al majdi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ajaza kulla li muy wax yonente bi ni nga ko koy waxee nga xam ne araf bu mu yëkkati yore wala day yàkkamti pour ñu bëgg bëgg benn xale bu tuuti taxaw daal di di di critiquer xasida sëñ Tuubaa naan xasida yi fii fii la war a maas lii nii waru ko waroon a maas lii ko dugal nu lii nu mën a di di reetaan di mokke ci gone gu tuuti nga xam ne ni nga ko da leen di wér ni nga dem di ko te mu wér la ni yow bu doon dëgg sax waaye loo xam ni maanaam xel sax da koo nanguwul naan lii nii mu bindee lii wut fu anaan lii nu ngi koy maase lu tax xam di ko fu jar nag da dem ba ci yàgg yéen ñi ko moo tax man la taalu bii dañoo yëgul xew waaye bis bu ko yëgee du baax ab gore gu ndaw moo def loolu bërki dem rek am keneen koo xam mi ngi critiqué di attaqué murid yi bokk ci wahabi yi salafis yi ba ñuy tawaaf kaaba gi tawaaf nañ ba def li yàlla digle lépp jël seeni xasida di ko jàng te xasida mooy ñaan yàlla ak julli ci yonent bi mu taxaw di leen wax lu nekk naan ana kuy tawaaf naan da ngay jàng ay xasida teñ jàng ko ci madina yii yëpp nag day mbir yoo xam ni du mën a continuer du mën a ba ma taalee wax ba léegi nag maa ngi leen di wax ngeen waxagul ma benn yoon boo xam ne indi naa fi loo xam ne dañoo jékki-jékki rek wax noonu déedéet lenn lu ci nekk rek day ay wax ay ñoom ñoo ko indi loolu nag moo war a jeex état bi na jël responsabilité na jël responsabilité am ci sàmm li nga xam mooy mag ñi warmaal leen ak ñëpp Sénégal yëpp ku nekk nag bu la neex nga jàngale la nga gëm wala la ngay topp yaa xam waaye jëmmi nag di di di xas mag ñi di leen saaga di leen takk fiir lu ne nga wax ko loolu moom mënut a moom. te li taalib yaa ngi dégg nag mbir maa ngi commencé di jóg léegi lu leer laa leen wax liberté dafa am fu mu yem nit day doon as gor nit day doon as gor bu fekkee ni mënu leen a dellu fay fay fay naar bi xorom sërëm kenn ku ne jàpp ci li war a jàpp loolu daal laa leen wax ci wàllu googu mënuma ko woño bañ a indi muy benn poñ bu jëkk bi ngeen jéggal ma nodd gi jàll ñu ñëw ci ñaareelu poñ bi incha allah alhamdulillahi alkarimi silmilan bi furudin sakartuhu liannu qad li watani bi nafa ma jërëjëf mbokk yi ginnaaw kon ñu dellu si ñaari ponk bi lépp nag dafay dugg ci am réew bu dee dox am yooyu xew te ñu war caa jànge lu bari ba loolu du xewaat dañ ko war a waxtaane di ko dénoncer histoire wu Serigne bañ ko dalee bind ba léegi muy Cheikh Mouhamadul Bachir Minanul Baqil Xadim euh, Irwa un Nadim Cheikh Mouhamadou Diop la bi dagana ba ci tubaab yi Omar Ba fi bindoon jële ko ci archives yi ak yenn ñi nga xam bokkuñu biir réew mi ci bitim réew liñ bind Serigne tubaa kenn mësu koo bind ci benn nit fii ci Afrique xaw ma ko liñ ci bind ci moom ci arab ci olof ci lépp Serigne Moussa Ka ñëpp loolu nag dama yaakaar ni li tax ma indi ponk ponk bi mooy yaakaar naa yéen a ngi seetaan Saxum maa ngi leen di ñaan bu ngeen amee jot ngeen di dellu ginnaaw vidéo yi ci ginnaaw ngeen xoolaat ko ndax juróom sax ci ginnaaw bi may enregistré biñ ne professeur Iba Der Thiam ñaar fukki téere juróom yi ñu bind ci histoire générale du Sénégal yóbbu na ko jox ko njiitum réew mi sàq ma ca topp dama def ab laaj yéen a ko doon seetaan ni ah noo ngi ko de ba xam loolu ñu bind ci histoire générale bi nu ñu ci bindee la sëñ Touba ak lu ñu ci bind ndax dama ci amoon njàqare amoon naa ci tiitaange lool damaa laajoon rek nag accusé ma kenn daal ni nag noo ngi toog di déglu ni leen nag bind sëñ Touba yombul waaye li wérti wóor mooy nit ñi bind nañ ci moom génn sax loo xam ne El Hadj Madické Wade moo ko bindoon loolu war ngeen koo seetaan yéen ñu ko seetaanoon loolu jàllee mu wëlbatiku nag ñu toog ba léegi ñu dégg ni livre bi génn na ñi ngi koy jaay ci librairie yi mi ngi tasaaroo am na ay këri diine yoo xam ni gis nañ ni ñoom lañ leen waxal daa jaar nee histoire jaar nee loolu dégg ko ñu tàmbali cee wax man li ma ci a wax nii fii mu jëm ci mbirum sëriñ bi am na lu feeñ nag ca la ma doon ragal moo tax ma ni Iba Der Thiam et l'histoire le professeur d'histoire et l'histoire entre Iba Der Thiam et l'histoire li tax ma di ko wax nag mooy moom moo jiite commission bépp bépp kon mooy responsable bi waaye dafa am loo xam ni histoire dafa baax lool li tax ma di ko delloosi yeneen a ngi bi am na fi ay at ci ginnaaw am na lu fi xewoon sama diggante ak Taïb Socé ak professeur Iba Der Thiam mii ci 2STV la woon man seetaanuma ko woon Cheikh Mouhamadul Fadil moom suñu champs yi moo ma woo téléphone ni ma santal yàlla ma ne ko lu tax mu ni ma ah ndax su amee yu xew rek xel yi dem ci yow. ma ne ko lan la mu ni ma ñaar ñii ma tudd léegi mu wax mu ne jàkkaarloo nag ñoom ci biir 2 yi ñu wax loo xam ne ci mbirum sëñ bi ci histoire bi lu doy war booba laa noppee am jàmm maa sëñ Fallou ñu du jóg loola di ca taxaw kër sëñ Touba Colobane nit ñëpp faq murit yëpp jóg ñenn ñi daw wuti 2STV ñii dem wuti TFM RFM ñee dem wuti kër Ibader bañ nekkee di ko réglé bay def conférence de presse ak di waxtaan nit ñi kër sëñ Touba lu ko jiit lu ma Iba Der woo ci téléphone man moom ma woo en personne ni ma man maa ngi lay ñaan rek nga xamal ni ñu leen loolu ñu wax demeewul noonu waxuma ko nangam ki nangam ma dagal ko dogal ko gan rafet loola ba ñu jógee Colobane ñu ne ñu ngay bëgg a toj TF RFM man maa jël oto bi dem ba RFM dalal nit ñi jeunes ñoom kenn mënu ci woon ñoom dara Alassane Samba Diop mu ngi may dégg Maodo Ibra Kane mi ngi may dégg maa dem ba TFM wax ak nit ñi wax ñoom ba ñëpp dal ba ñaari leen ñu dem ñu tasaaroo ñu ne ma kër Iba Der nit ñaa nga fa jëm. ma ñëw kër Iba fekk fa soxna Mame Bousso sa sëñ Abdou Lahad soxna sëñ Fallou Sow bi keroog mi ngi takk ndigam bokk ci taalibe yi ñoom ñëpp mer di ko jëm kër Iba Der ci buntu kër bi ma ñëw taxaw nuy wax di wax di wax ba nit ña dal ba dellu waaye léegi suñu demee ba loolu moom moom waxu waxu ko woon ñu demaat ba léegi mu jiite commission bu toll nii li ma leen di wax nii la demee fekk yëgën ngeen ko histoire boobu moom la tax siiwul ca mbir ma mu yem ci tey rek la tax siiwul moom lii moo taxoon man rafet njort ak ni la waaye bi demee ba at mu ñëwaat lii ñëwaat xew ñu bind histoire du Sénégal ñu ni téere bi léegi ci lu wér cëng sañ bay jël si si am na lu mu ci wax téere boobu benn nee nañ Serigne Touba moo tuddee boppam Xaadimu Rasul waaye waaye gone yi jàng primaire sax xanaa bayt wi yàgg nañ koo dégg ah, allama ni rahmaanu fi safina bi am na anna ni xadimu dil madina yàlla ci boppam arrahman ki yërëm bindee fi ci àdduna moo ma xamal ni ma yow yaay jëwriñu yonent bi yaay xaadim rasul foofu la ko déclaré bu ko xamalee lu jiitu foofu la ko déclaré nga xam ne ñëpp waxtaankat yëpp allama ni rahmanu fi safina bi anna ni xadimu rasul madina yàllaa ma ko xamal jox ma ko te même bu ko tuddee woon boppam ñun ñëpp xam nañ ni moo ko yooyoo même bu ko tuddee woon boppam waaye yéen ngeen dem falsifier histoire wane bi xool leen jooju wax beneen bi topp ku toll ni Cheikh Mouhamadul Bachir ni ko may jël si lu waxe dem ba doomam tey di xalif général di murit war maalu leen ko Serigne Mouhamadul Bachir mu um Cheikhul Khadim au lieu que ngeen ni Serigne Bachir ngeen di ko jéem a tuutal di ko sewal naan le jeune Bachir ci ci ci livre bii di histoire générale le jeune Bachir nee nañ sax am na fu ñu waxee le jeune Bamba loolu moom wóoraguma waaye le jeune Bachir bi moom nee am na maam Thierno xamu leen fu mu gënee àdduna ak ban dat la gënee àdduna am ba des mooy. histoire générale bi di bii jël leen ko ngeen lakk ko bala maa dee nag ñu ni c'est une erreur on va le rectifier comment le il faut être honnête intellectuellement comment le rectifier loo xam ne mu ngi ci librairie yi jaay am na ñoo xam bu ko jëndee mu neex leen ñoo ñoo koy rectifier déjà est-ce ku leen ku leen ni benn étranger jëndagu ko nii ba dem ak moom bu jógee woon ci meneen réew wala mu dëkk ci beneen réew léegi bu demee loolu lay bind Xaadim Rasul mu tuddi boppam Sëñ Tuubaa ak yeneen yi ca dekk te egguwuñ ci noonu ko ci vraiment professeur tu m'as si am nga histoire ak histoire am nga histoire ak histoire dëgg dëgg dëgg ndax bu kenn ni moom bind ko wala déedéet moo doon mooy xanaa ab téere bu ñu ko bindee ba noppi danañ ko liir bokk relire ko xoolaat ko ba xam wala ñu jox ko ña ca bokk ñu leen xool leen ba xam ndax lii bu ñu xoolee ba noppi ñu càmbar ko xool ni ah dindi leen lii tey bu fekkoon ne joxe nañ ko yónnee ko ci yoon ñu xool ko ba noppi kon coow li sax mën naa bañ leen ah, li ngeen bind dafa juum sëñ Tuubaa li bind ci moom lépp. histoire Sëñ Tuubaa boo ko bindal boppam yomb na mi ne noonu baaxil xadim tubaab bi bind nañ ci foofu nag dinaa wax solution bi bala maa jàll ndax am naa ñaari solution yu ma bëgg a indi ci mbirum école yi ak mbirum histoire bi nun taalibe yi le mouridisme am nañ mooy am nañ xam-xam bi am nañ jumtuwaay yi tàmbali woon nañ ko am nañ ko bind mais léegi li jot nag mooy histoire du mouridisme d'une manière général ñu jub bind ko ci ñi ci bind ñëpp ñu certainement ba teg nga xam ne kuy ñëw ci référence boobu ngay dem bu fi kenn xaarati histoire générale Sénégal loo xam ne moom lañ bëgg jàngale officiellement ci école yi tey su fekkoon ne jox nañ ko xale yi lii ñu gëm ko ni Serigne Touba mbir mi nii la demee ak yu ma eggagul ah wér na ma ne am na ci yeneen yoo xam ne eggaguñ jë lu doy waar lii mas ngeen ko gis ci loo xam dañ ko war a jàngal ay xale këri diine yi ñoo jógagun mais këri aada yi sax mën naa am am na ci ñoo xam ne boo moytul wax nañ ci njaaxum yoo xam ne kenn du xam lu mu doon ça c'est du farce quelle farce am réew kenn ko farcé Sëñ Tuubaa taarixam moo bind boppam sëñ Tuubaa ay fee la xam nga am na yoo xam dañ naan fekke nag ñi la de sëñ Tuubaa c'est des faits c'est des faits réels ay ay fee la da ay jëf la dañ ko bind waaw dem ci bureau ba dem ndar ñëw fii def lii nag jëkk yooyu yëpp ak fi mu jaar fépp beneen bi gën a garaaw nag mooy ñu mu wax ci téere bi ni ñu wax ci téere bi ni Sëriñ Tuubaa Maamoor Anta Sali amul woon jot jàngal ko moo tax léegi mu demoon Mauritanie pour sàkku si fa jàngi arab amul woon jot jàngal ko waaye yow koo xam ne ci Mamour Anta la nekk ba Mamour Anta Sali bàyyee ko daara ji mu di ko jàngaleel ba ñu nekkoon ci Mamour Anta bi mu fi jógee ay mag lañ ñi jëkk a jébbalu Serigne Touba dañ doon jàng ñi jëkk a jébbalu mag ñooñu nga doon dégg ñeen fukk yooyu ñi ci jiitu ñooñu dañ doon jàng xam-xam ci Serigne Touba bi Mamour demee lañ toog ñoom di jàng ci Serigne Touba xanaa dégg ngeen wax jooju kay kooku nga xam ne yàlla defal na ko ci làkku arab lu nusi ali nuuru lisaani wal kitab azmana xidmati la ahli kitab li ko yàlla may ci làkku arab mayu ko sax kenn ku weex laa la wax te wooyu leen léegi bu leen neexee université Égypte Koweït Arabie Saoudite ngeen wooye kàngam yi gën a ay ci littérature ngeen teg leen ñu tax xasida Sëñ Tuubaa ñu càmbar ko ngeen xool te lool dina ma sa ami ñu def ci benn séminaire ngeen xool kenn koy làkke ni moom amul nga wëlbati ko taxaw naan déggul woon arab boo taxoon mu dem moo Mauritanie dafa jàngi arab mais même bu loolu amul sax kenn du ci wax dara mais loolu dafa amul li ñu wax lépp dal du ci dëgg loolu nag mënuñu ko woon a bañ a souligner lii proposition bi nag mooy livre bi nañ ko lakk recommencer à zéro réformer beneen comité traditionnel yi bokk ci géwél yi ñemewul yàlla bokk ci te am xam-xam defaruñu fenn histoire Sénégal ñi ko xam dañoo bari historiens yi nga xam dañoo jàng moderne ñu bokk ci ñaata professeur d'université ñoo fi nekk di taalibe su ko defee léegi ñu tas ko pourquoi ñu koy yàkkamti lu tax duñ ko bind d'ici dix ans nañ ko jëmale dix at mu nekk ñu noppi ci benn mbir lu toll ni Sénégal ak histoire am ni riche ngeen bëgg ko patam patame ni li ci bëgg nag jël Serigne Touba bi nga xam ne histoire am histoire moo bind boppam ba noppi histoire Serigne Touba moo bind boppam histoire Serigne Touba moo bind boppam du mën a falsifier kon loolu bëggoon naa ci dikk solution bi nag wax naa ko bis désormais ubbil nañu nu bunt nun nu jógaat nag nun taxaw taalibe yeeg ñëpp ñu taxaw léegi bind histoire Serigne bi ci ay téere yu dul jeex du jeex ku bëgg dem jariñ ci loolu mënut a ñàkk beneen bi topp ma ñëw ci ñaareelu poñ bi nga xam moom laa bëgg waxtaane ñetteelu poñ bi mooy diggante Serigne tubaa ak pharmacie Guigon xam naa dinañ ñu bari dinañu yéem bu waxee loolu diggante Serigne tubaa ak pharmacie Guigon diggante sëriñ tubaa ak école institut Jeanne d'Arc xam ngeen lu tax wax loolu maanaam pharmacie Guigon ñaar ñañ fa dàq bañ ñu julli ca biir pharmacie ba moo tax ñu am seen ngor seen jom ñooñu dañoo jàng leçon dañoo jël leçon ci Serigne tubaa waxuma biram dara de keroog bañ teree Serigne tubaa ca biir géej ga ca gaal ga ni ko doo fi julli Serigne Touba sànni dara ba ca géej ga ñaar ñii nekkoon université ñaar ñii nekkoon Gigon lii moo lii mooy rapport bi am diggante Serigne Touba ak ñaar ñi nekkoon Gigon bu leen fi julli ci pharmacie bi mu jaral leen ñu bàyyi ñu dàq leen ñooñu dégg nañ Serigne Touba ñoom loolu moo tax ma ni institut gi ko ak Serigne Touba ñaar ña fa nekkoon yàlla jaral leen ko seen diine jaral leen ko ba tax ñu dàq leen ñoom dañoo dégg Serigne Touba moom ca biir géej gi bañ koy teree julli moom nga xam ne ñoom sax man nañoo génn julli ginna biir far waaye Serigne Touba ci géej gi la sànni bakkan bi lépp la ci yemale ñooñu moom dégg nañ fi sëñ bi teg julli gi ba loolu jàllee far institution rek ak Serigne bi règlement intérieur bi ñu leen di signaloo yenn élèves yi wala parents d'élèves yi pour xale yi muuru bu dëppoowul ak l'islam lànk leen ko fu ngeen koy teg règlement intérieur bañ gu ko sëñ Tuubaa bañoon a moo tax ñu génne ko réew mi réglé règlement intérieur bi tubaab yi bindoon ci réew mi bëgg ni ñu ko bëgg a tërale loolu bañ gu ko sëñ Tuubaa bañoon a signé ndax ñàkk gum dëkk ñàkk du foog lislaam moo tax ñu génne sëñ Tuubaa gàcce ngalaama yéen yéen élèves yooyu itam parents d'élèves jërëjëf bu nu kenn nag wax problème mu chiite ak musulman ak nangam nangam bu waab déedéet ay jullit lañ ay jul lañ tout court bu leen ñu nax di jaxase nit ñi bu leen ñu nax di jaxase nit 22 personnes lañ Aïchid lañ Abdoul Mohamed Zeyn nang déedéet ça ne nous regarde pas c'est des musulmans tout court ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah point am nañ droit muur seen bopp li ma ciy dolli ci mbir mi mooy wax naa ko ci audio bi Antoine Henri Benoît Diédhiou mi jiite parents d'élèves yi école lay gi wax na wax joo xam ne war na ko retirer te jéggalu ko tooñ na sax jàngu bi ndax mbir mi du diggante parents d'élèves yi catholique yi ak musulman yi du diggante chrétien ak musulman diggante administration institut Jeanne la ak ay élèves yu fay jànge kon moom waroon naa rusa yëkkati kàddoom ci loolu parce que loolu mën naa taal ak daay bu ko defee ñenn ñi mën nañ seen xol maanaam yëkkati ko moom parent d'élève la jiite kuréelu parent d'élève école lay gi moom waru cee yëkkati kàddoom war naa retiré kàddoom googu jéglu jàngu bi jéglu jullit ndax moom ak jullit administration la ak école dégg naa keneen ku ci wax ni Sénégal n'ose pas fermer institut Jeanne rek d'accord na ma moom ci forme bi xëy na régime bi fi nekk ñoo moom ñoo osé wul bu fekkoon ni ñu bañ ko fermer ndax nee li tax loolu mooy résolution la Nations Unies Sénégal dafa tënku ci constitution constitution bi dafa am lu mu wax ndax Nations Unies mais ñaata yoon la Israël lañ ñaata résolution lañ teg ci kanam Israël mu daggate ko sànni lu ko ci fekk ak yeneen réew ñaata indi ay résolution ñu lànk kon Sénégal gi nga ñemewul a tëj kii ndaxte communauté internationale ñu koy xool communauté internationale xooluñu Israël xoolu ñeneen ñeneen ñu def leen neex mais il faut arrêter ko il faut arrêter hmm? ay nit ñeen di waxal ban constitution constitution boo xam ne même ci Sénégal rek biir CEDEAO wax na ba tey ak ñu caxat caxatee ko ba seen xol sedd nga ni Sénégal n'ose pas fermer l'institution rek parce que dafa tënku ci ay convention inter yan convention internationale Israël ñaata résolution la ko Nations Unies jox ni ko na dakk tey mu xotti ko sànni ak yeneen dëkk ay nit ngeen di waxal foofu nag li ma fi indi rek ni ma indee woon solution ci histoire murid yi nañ ko bind li ma ci xalaat mooy lenn Alaaji Serigne sekk bu CS aluminium ah, boroom Touba gaz borom lobbu maam jaar boroom seen karo ñi organise ko kii alxuraan yëpp li tax ma tudd leen da ngeen di doomi daara ba noppi jàng am ay doomi jàng waaye am na yeneen taalib yu fi nekk ak homme d'affaires yoo xam ne boole leen jàppale ni boole daa leen ci man na maa ko mbay sar Sénégal tur wala keneen ak keneen pourquoi léegi nun duñ jóg jël programme bi fi yaawu silim indi woon wala ngeen dem ba lycée jàmmalaay mi nga xam ne école privée sax moo leen man ngeen recopier programme bu wut ay nit créer ay école di fayee ko xaalis bu mat ni ko gendarme di fayee ko ni ko ANMES di fayee ko di ko Sacré-Cœur di ko pour doomi jullit ñoom sañ a dugg jàng muuru ginnaaw mënu ñoo toore loro laa suñ problème nañu julli investir baax na di boo ca investir di nga ci am yàlla am ci xaalis kon ñii ma tudd yaakaar ne maa ngi def appel ci ñoom nañ dajaloo ku nekk génne su ko defee ñu woo professeurs yi nga xam ne dañoo retraité mën a jàngale ba dee dara jotu leen ñu jox leen loolu su ko defee ñu ubbi école yoo xamante bi mooy gën yooyu école fop ci qualité ak quantité mën a tasaaroo ci réew mi maa ngi bëgg am doute maa ngi jàngat dellu si histoire ni yaawu Salim li tax ñu tëj ko du rek Erdogan parce que Yerusalem li ci nekkoon ci arab ñaata junni lañ léegi anañu ñu ngi ci école yooyu lañ nekk parce que Yerusalem da doon defar nit ci àdduna ak àllaxira fataala gulaan nan la mën a gêner Erdogan nit ñi moom dafa jullite jullite bu ba bu noddukat faatoo mu bu ko yóbbu da koy yoon moom Erdogan ndax jullite kooku nan la nan la ko nan la ko njàngum jullit ak njàngumu sell nit Sénégal nan la ko mën a déranger fataala gulaan ma nga ci états baa ngi fii ci biir Sénégal moom ma nga ca Turquie lan la ko war a a gêner ba président bi mën a taxaw Sénégal président taxaw sa ni président Erdogan moo ma ñaan ma tëj ko xanaa Erdogan kay bu fekkee ne l'islam rek ko ñor na bàyyi école yi nga xam ne tas nañ ko bu yaawu salim te nun noo ko def de mais am na ay dëkk ay Nigéria yooyu ñoom dañoo lànk yaawu salim ma koy dox ba léegi Sénégal rek lañ tëj yaawu salim le plus catastrophe du Sénégal fii la xewe yeneen dëkk yi dañoo lànk ñoom ñu ubbi seen yaawu salim ma ngay dox fii rek ñëw tëj yaawu salim lii solution bi nag mooy li fekk nuy am régime bu baax bu normal bu njàng mu yitteel boo xam ne dina dem a dem ba école publique yi moo leen mooy gënal nit ñi école privée li fekk muy am loola taalibe yi ak jullit ñi am xaalis nañ dugg créneau boobu investir seen xaalis ci biir école yi programme bi yomb na mi ngi nii programme bi doon jàngal jàngale yow sale mi ngi nii ñoom ñii ma lay wax école yooyu ma lay wax programme bi ay nit rek ko defar ya jàmmalaay gii kay sëñ bi école publique la ci biir banlieue ba la rek mais résultat ñoo ciy su guddeeg bëccëg lu tax duñ jëli ña fa nekk jël copier modèle boobu dem tabax rek la teg defar su ko defee nit ñi nekk ci laajal li ñee di laaj ci xaalis sax solution baa ngi loolu man loolu laa gis Sénégal gii dana war a góorgóorlu mu am fu mu jëm dana war a góorgóorlu mu am fu mu jëm loolu du ma ci waxaat foofu laa ci toll ba beneen yoon beneen bi ci topp mooy nga xam ni benn poñ la mooy Masaalikul Jinaan jumaa ji ñu doon tabax ci laay wax rek Dakar tey ji pour ñu tontu Jean Michel Cadenas pour ñu tontu ko képp kuy jullit wala ngay murit ajjuma bi ñu koy julli sa boutique war a war a da nga ko war a tëj administration nag ci dugg ndax boo waxee ñu ne non xool leen lu tax ñu naan déedéet mais kenn ku ne bisub keroog kenn wuti liggéey ku julli fajar ba noppi ba ndékki ba noppi képp ku jeune am kattan doxel Thiès wut si Dakar doxel yeen wut si Dakar doxel Mbuur wut si Dakar doxel Sali wut si Dakar Dakar moom waxali wu ko la tàmbalee caaro yi ñetti mbaar buun yëmbal géejawaay parcelle ngor wakaam mermoz faan plateau yaar yaraax an Rufisque Bargny fépp nit ñi nañ sol lu weex ak lu wert wut ay pancarte bind ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ànd ak yar nag ak teggin sans folklore sol lu weex ak lu weex lu vert ku mën a sol lu weex tàll nga sol ko ku mën sol lu vert nga sol ko muy couleur l'islam ñëpp ànd nag aw ci mbedd yi waxuma dugg oto de mag ñi mën nañoo dugg oto mais jeunes yi te nan woon sëñ Tuubaa ko tey ji la victoire la victoire devant les ennemis bu ñu bindee pancarte yi ñi ñu yor ko ànd ak yar laa wax waxuma folklore yii ni ñuy def ay xumbal ak yooyu déedéet ànd ak yar ak tegin ndox ndànk bañ a déranger kenn laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bind ko ci ba noppi nag fa ngeen jógee ba keroog ngeen di egg ci jumaa ji nañ ñëpp naan jërëjëfe xaadima rasul jërëjëfe xaadima rasul lu tax ma wax xaadima rasul ji kii ne xaadima rasul mu ngi ko tuddee boppam ca Mauritanie te sëñ Tuubaa wax ne ci yoonu géej gi lañ ma ko tuddee xaadima rasul ji keroog na jib na jib xaadim rasul ji na jib bu ñuy inauguré jumaa ji na jib xaadim rasul ji na jib ci biir Sénégal gépp pancarte bi sax bi ñu ci xaadim na jib ba ñu xam ni kii la yàlla tudde xaadim rasul jërëjëf yi nag bu mu dàkk ba ko bu kenn déranger kenn selma yeeg ñëw ju doole yelwaan ñu wutal leen aménage leen place kenn bu dox nañ tere itam amul taalu kenn kuy taxaw bàyyi yi nañ sol lu ñuul ak lu weex wëlbati ko jël ay ndox di jox kar nit ñi di leen ko jox ku ci sonn ñu dimbali la ku ci maanaam assistance nañ nekk assistance amul kenn ko yalwaan keroog tout bàyyi faal assistance nga war a nekk ku ne ñëw indaale subsidiaire maanaam nañ fa wane keroog lu kenn mu mësta gis na yëpp jóg def benn dank jul yëpp jóg oto yi bu lu ak koo mën a doon oto yi xam ngeen parc boobu ci Colobane kilifa yi mën nañ faa gaare nga xam ne oto moom koo mën a doon war ngaa mën a daan di jumaa ji lu mat un kilomètre ndax wér na leen ba stade Demba Diop nit ña dañ fa lal basan ba mu monument de l'Obélisque nit ñi dañ fa lal sajjaada ba HLM fa fa fa yor ma jeexit dañ fa lal sajjaada loolu wér na leen marché foofu yëpp waxuma jumaa jumaa ji waxaale wu ma ko loolu ay nit yu néew fay waaye li wér mooy mbedd yooyu yëpp dana kon setal gi wér na mu ni comité bi ñoom ñaari weer ngi ci guddeeg bëccëg nelawuñu noppaluwuñu waaye li nu war fi ñu toll nii Jean Michel Cadenas mi nga xam ne noonu na jumaa ji daal moom da koo jàppee ak yàq devant l'aide internationale du développement maa ngi koy laaj léegi kër sëñ Touba ga ca Taverny fa bomb atomique bu France nekk Taverny fa la bombe atomique France nekk sëñ am na fa kër xasida yaa ngi fay jub loolu xanaa yàq la kon Jean Michel boo demee Canada amul ci àdduna bi 6000 mètres carrés sëñ Cheikh yi ngi may dégg ak maam Cheikh Fall ak ña fa nekk taalibe 6000 mètres carrés Serigne Touba jëndal nañu ko fa 6000 mètres carrés ci biir Canada Jean Jean Michel ak Renaas xanaa loolu ak yàq la bi yoon du ma merde Jean Michel du ma merde. mooy savourer la victoire de Cheikh Ahmadou Bamba dama koy savourer du ma mer non bi yoon déedéet dama koy savourer waaw damay bég damay kontaan ci yàlla ak yonent bi Sëriñ Tuubaa ak jëwriñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam damay bég du mer lii may seen 27 adduna sëpp nañ jóg ku mën a yox ndox yor ndox yor ndox amul bàyyi taal bu yelwaan wala kenn ñëpp nañ teg seen i ndigg képp ku ñu gis war nga war soxla assistance bi defal la ko fu ñu war a bale bu fa ak weñ taxaw ku am ay sijaadi lu waay am na ko indi du woon du doon jumaa ji jumaa ji waxaale moom nee naa leen ba usine ñaari tali ale boobu yëpp wér na di foofu ay basan lañ koy lal kon na adduna sépp doo kenn bañ a liggéey ci ñi nga xam ne ñoo moom seen liggéey ñu nekk administration am na heure bu ñu daan wàcc ajuma lii moo jaaru tey dinaa ci dellu si waat nag incha allah bala ñu caa egg lii ab tàmbali rek kon bokk yi lii laa leen bëggoon a wax tey li ci topp mooy xanaa nu waajal màggalu 20 muharram muy sama turandoo Cheikh Moustapha bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba daje ak yàlla te Serigne bi wax ni képp ko fanaan Touba ñu jéggal ndax wér na leen ni bis bi Serigne Touba daje yàlla moom dara du mel noonu te Cheikh Moustapha moo ko indi woon ñu dee ko def fii ci Touba ñu ngi ko dëgmal nag kon nan waajal loolu leneen la topp bu ñu ci jógee nañ ñëpp nag waajal màggal nun du noppalu sëñ bi nit ñi daal ñeq xulubu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaa laa raamul wal ba seeni xolay dagg rek waaye bu ñu jógee dem ci beneen bu ñu jógee dem ci beneen di bëgg rek di sant sëñ Tuubaa di bëgg rek ñun kenn du ñu stressé ndax sëñ Tuubaa rek boo koy xalaat doo stressé ndax boo ko xalaat yaa ngi xalaat yàlla boo ko xalaat yàlla yaa ngi xalaat yoon bi kon nan jëm ci yoon buñ réew mi sonn nii la déedéet nun nan won nan won nit ñi masa bis bis boobu xaadimu rasul li mu liggéeyal fi li mu liggéeyal yàlla ak yonent bi jëlee leen ndakaaru laa wax jëlee leen ndakaaru waaye tey jii na ñëpp jël waaye bu fi maa ngi daal ñaan dañ ko def ci dal ci yar ak ci folklore daal bu am solo nel nañ dal dal goo xam dana jaaxal nit ñi nañ ànd ak yar goo xam dana jaaxal nit ñi bu kenn xëccoo bu kenn buuxante loolu yu amu ci benn sens ñëpp nañ ànd ak yar koo gis def koñ sa bopp jigéen ñeen ñëpp ñu teel leen a wuti yomb na mën nañ ne léegi bu subaa maanaam kuy jigéen ak foo mën a jóge yow ci ginnaaw ngay nekk mën nañ ñoo limité ñoom waaw mën nañ leen tàmbali ñi ciy dugg ci jumaa ji bu jeexee ñu ne léegi ginnaaw ñaari tali jëm nële ca ginnaaw église boobee église bu sax dañ koy wër julli ko far église boobee sax dañuy wër ci ginnaaw mbedd moom yëpp wetu enam ak yëpp ko defee jigéen ñi féete day jor góor ñi féete càmmoñ bu boobaa jaxasoo du am bu ñu ko teelee wax rek nit jigéen ñi ñëpp nañ féete masaalikul jinaan nday jor kuy góor féete ko càmmoñ loolu dina yomb organisé loolu nag bu ko waxee teel ko annoncé ba noppi teel a wax ci plan de circulation bi loolu yëpp lay baax te gëm naa ni alaji mbakk yi ak ñi ci ñëpp guddeeg bëccëg ñu ngi ci kon maa ngi leen di leen gërëm tey nag bu kenn gudd de mënu woon a ba a gudd tey ndax xam ngeen ni yàgg na fii may waxee ak yéen ñi dellu sigul sax rétabli dul ni ñu war a rétabli waaye noo ngi yëg sëñ Tuubaa ba tax na yëgunu benn benn coono ci li nga xam moom lañ def noo ngi leen di gërëm di leen sant colonie bi vacance bi nag xat na waaye li wér mooy talaata ji mooy bis bi mujj ci ñi nga xam ne doon nañu war di wax ak ñun ndax date ba dootuñu ko ban école day ubbi bu dee amaatit léegi dañ koy tënk ci bi ay bis rek kon léegi képp koo xam ne gisoon na annonce bi wala mu kii mën naa woote foofa waaye lu weesu talaata daal bu dee lu ci mën a xew fa lañ koy yemale moom allahu rabbi muy colonne de vacances kon nag leen sant leen gërëm di balu ak ñëpp tey jii incha allahu rabbi alxames lañ leen waxoon waaye tey di ngeen ko mën a xool bu soob yàlla jërëjëf Cheikh Mouhamadul Fadil yàlla nañ daje ngërëmu Sëriñ yàlla na ngeen a daj si ngërëmu Sëriñ Tuubaa yàlla nañ ci jar bu ngeen jar jërë ngeen jëf incha allah الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني